salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñu seetaan dañu bàyyi su nekk ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay tey yemoo ak dimanche 6 août 2023 dimanche Xuddoos ñu ñëw fi nga xam ne moo di ci ci école Serigne Cheikh Gaynde Fatma fas yéene ñëw rek waxtaan ak suñu mbokk taaliba yi nga xamante ne ñu ngi fii ci dal bi lu jëm ci wàllu restauration bi maanaam xéwal yi nga xamante ne ni dina fi bàyyeekoo euh, xam naa ci kanam tuuti incha allah dañuy dem seeti ki nga xamante ne ni moo di jëwriñ ji ki ñu dénk wàllu waañ bi ñu sëkk ak moom laaj ak tontu laaj ko naka la xéwal yi demee naka la restauration bi di demee waaye tamit bu paree fan lay dem xam naa ci kanam tuuti incha allah di ci gën a am ay leeral ma ànd ci ak sama caméraman bi di Modou Lo mi ngi noonu kon xam naa ñu jox leen dig daje ci kanam tuuti incha allah. salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay soxna si. Fall ñu fàttali ñu tur beeg sant bi. Serigne Mbacke Lo Serigne Mbacke Lo. Serigne Mbacke mu mel ni yooyu yaa yor lu jëm ci wàllu waañ bi. waaw waaw ñoo ci nekk rek. comme niñ ko daa defee rek di ko waaj bu weesoo ñu tàmbale waaj ko jëme waat ko déwén yàlla dogal ñu ko doon waaj ba léegi suñ borom yóbbuñ ci jàmm ñu agsi ci jàmm di sàkku lépp luñ ci wut ci ngërëm yàlla nañu ko defal waaye yàlla yàggal fi sëriñ bi. ah leneen li des nag muy wàllu liggéey bi ci organisation yi moom. ñu ngi ci yaa xool niñ ciy doxee ak foo ci bëggee loo ci laaj boo dana ci tontu incha allah. Euh, mën est-ce que mën nañ xam ñaata mën na ren ngeen def par rapport ak daaw. waaw loolu li nga xam ne moom la ñu def moom liñ la ci mën xaymaal ci mbay toll na ci cinquante deux fi mu toll buñ ko xaymaa ci ren ak daaw ban moo ëpp euh, mbana. waaw buñ ko dee xay nag dañuy wax ne alhamdulilah ndax yokkute am na. ndax xëy na daaw mënoon na mat ay quarante nangam quarante cinq wala yooyu ren dem nañ ba cinquante nangam bon yokkute am na bon ñoo ngi sant yàlla baax a baax waaye ci programme yi daal ñu xam ne dafa nekk ay commission commission donte la ñoo jiite wàllu organisation waaye nag li des dafa def ay commission commission yan la. dafa am commission sociale am na commission restauration ak yooyu yëpp dafa nekk ci biir. commission sociale bi ak euh, commission restauration bi lan mooy seen lan mooy seen liggéey. maam commission sociale bi dafay nekk ci biir ngir di saytu doomu aadama yi ak lépp loo xam ne teraanga la yu ñu war a jot ñu fexe ba ñoom ñu jot yi waaye nag restauration ñoom ñooy nekk ci biir waañ wi lépp loo xam ne lu ñu war a togg la wara lu ñu war a saytu ba mu tege ci yoon ñoom ñoo koy def. Euh, lu waral est-ce que mën nañ xam lu waral ren ngeen yokk mën a yi nit ñi ñoo yokk wala. waaw nit ñi nag macha allah wax dëgg yàlla yokk nañ bu baax a baax boo xoolee nit ñi moom at mu jot day gën di yokk day gën di yokk ndax lii day liggéey boo xam ne day liggéey boo am solo ndax bis bi yaakaar naa ne bisu jullit yëpp laay wax ne la ndax Serigne Touba dafa wax ne bis moo ko gënal ci bisam kon loolu bu dikkee dama yaakaar kanam la jëm wan jëm ginnaaw. bu ñu paree bu ñu paree ci toog yi fan lañ koy yóbbu. toog yi bu ñu paree ñu ngi koy yóbbu kër sëñ Amadou Mokhtar xalifa Darou Khoudoss moom lañ koy jébal ñetti fan la ñu togg bu ñu nee suba bi ak bu subaa. loolu it nu demee. loolu yëpp maam ci demee gi ci bi ngeen koy yóbboo ndax dafa am ñoo xamante ne ñoom dañ koy sas ñu yóbbu ko. non buñ koy yóbbu dañ koy yanu pili da ay 100 bool la ñuy tibb wala yu mel noonu yanu ko boole ko kum jàng ba àgg. toog ci kanamu sëriñ bi jébbal ko ko bu noppi mu joxewaat ndigal ñu séddalewaat ko ci kër yi soog a ñëw taalaa reer yi. lan ngay wax ci màggalu Daaru Xuddoos bi ren. waaw sant yàlla rek cee wax dëgg yàlla xam ne am nañ ci lu kawe njort ndax seet na bañ ci jotee di ko liggéey ba léegi de am ci ndigal maam day yokk mos sa wàññi ko kon ñoo ngi ciy sant bu baax daal. waa Maodo Moustapha bi ale wa asabi rajo to menal ale Sadi Khady daal ñoo fii jigéen ñi fas yéene àndandoo di liggéeyal sëriñ bi tàmbalee ci ndigal yem ci ndigal rek dañu ànd sunu sang bi Cheikh Moustapha mu yàgg fi loolu te wér at mu jot daal nii lañ koy defee rek àndandoo lépp loo xam ne digal nuñ ne ko rek dañ koy def ba def ko ni nga xam ne dana kawe njort jigéen nak nag moom maa waaye ñoo ma man fuuf ñu am pastéef ñoo fa daje nekkuñ ci daadu li bëgg-bëgg sëriñ bi rek loolu rek ci lañ nekk taxaw fa seen taxaw ci màggal gi di ko def ni sëñ bi bëggee at mu jot rek nii lañ koy àndandoo am pastéef lool ñoom ñooy ne ci famille màggal yëpp ñoo fiy nekk ba meeg yëpp jigéen ñi doon lañ koy defee lu ma luñ war a def rek toog def ko bu noppee jël la ca des def ko buñ noppee yanu añu yóbbu ko kër sëñ ba bu dikkee taal reer yi bu noppee yóbbu kër sëñ ba ñëpp ñëpp ay organisateur lañ moom ndax bu xasee ba dara moom ay organisateur lañu doon bu fekkee nag moom day xew-xew ci biir rek moom benn organisation la waaye fii ne moom ñëpp ay organisateur lañ ndax ñëpp ñu bokk ne ci liggéey bi rek. la ngay maam Amina Baye Cheikh Cheikh Modou Moustapha bi ale wa alabi rajo to mina bage ya doxole xadam se se ke sada Cheikh Modou Moustapha bi ale فبآله وأصحابه رجل yaa Touba la toba Mbàkke sare am ila Tuuba Matar na fi yàgg lool ci wér yàlla na ko yàlla def wér ak mboolem yéen di àndal ñoo cantu dong yi daa ngi daal dong daal ñu ngi sant yéen nag yéen a xam lu ngeen di fàggul waaye ñoom ñu ngi sant sëriñ bi noo ngi lay nuyu noo ngi lay siyaara bu baax ci turu sunu jëriñ sëriñ baaraloo mi nga xam ne moo jiite mboolem dong yi ak sëriñ Moustapha Dieng général di la nuyu ci turu sunu yaakaar bopp sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Mbacke soxna loo sëriñ Baara wax ne liggéey bi benn yëg-yëg rek lañ ci am li ci des ak ñaan la kono ko ñaan leenu jël mooy yëg na ne ndigalul sëriñ Mbacke soxna loo la woon sëriñ Moustapha it bi mu dikkee di ko wéyal di ko dolli di ko seen mbégte ak ndigalul way juróom wu tedd wa sëñ Baara nee na yëg-yëg bi ñu ci am mooy yëg ne sëriñ bi digal nanu ko nuy ay taalibe yuy jëfe seen digalul sëriñ yëg-yëg boobu lañ ci am li ci des yéen a ko xam xamuñu ca leen pàggu nag goo xam ne ab taalibe sañ naa yoros waatoom dem yalwaan noo ngi ciy yalwaan njabootuk sëriñ Tuubaa gi tàmbalee ci sëriñ Muhammadul Muntaqa ayyadahu allahu wa nasarahu ba ci sëriñ ahmadul muxtaar waaye xalifab sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak buntu kër sëñ Modou Moussa ak buntu kër yi sëriñ Touba yëpp ak turux yàpp yàlla na sunu borom defal leen ngërëmal yàlla te defal nu ko ci bis bi ci barkeb sëñ Touba waaye dongo yi nag sëriñ bi ñu ngi yelwaan sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamed yàgg fi lool te wér te nu jekku ndigalam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi dafa wax ni. naa ñëw teewal ko. naa ñëw teewal ko fi. jottali leen ay kaddu yu jóge ci moom. jottali leen ay kaddu yu jóge ci moom. kaddu yi Matar indi léegi ci la bokk. kaddu yi Matar Ndiaye mii indi ci loola la bokk ci kaddu yooyu la bokk. waaye damaa bëgg ngeen xam ni. waaye damaa bëgg ngeen xam ni. nun ñii fi daje. nun ñii fi daje. ñoo fi dajale suñu bopp. noo fi dajale suñu bopp. mbaa suñuy wajur indinu fi. mbaa suñuy wajur indi nu fi. saxal na fi ñu lang fi. saxal na fi ñu lang fi. penc mii di penc moo xam ni. penc mii penc moo xam ni. ku ko mën di ku ci man di tabbi. ku ko miin. ku ko ba tabbi fi. sa ngor dootu la may nga génn ko jëm fenn. sa ngor dootu la may nga génn ko jëm fenn. ndax ñi ñu ndax ñu ngi séq. ñi ñu ndax ñi ñu fi fekk. bis bii nag. bis bii nag. bisub Cheikh Mamadou Moustapha. bisub Cheikh Mamadou Moustapha. moo fekk moo fekk sëriñ bi njaareem. moo fekk sëriñ bi njaareem. mu bëgg ñibbi si mu bëgg ñibbisi si Touba. te gëj te gëj Touba fanweeri at ak juróom. te gëj gënal ko ci at ci lépp. te Touba gënal ko ci pàkk yépp waaye sama borom xañ ko ngir bëgg mu am li muy wut. waaye sama borom xañ ko ko ngir bëgg mu am li muy wut. am ko moo tax mu ñibbisi. am ko moo tax mu ñibbisi. wax Cheikh Moustapha ne ko. wax Cheikh Moustapha ni ko. bis bu may ñibbi Touba. bis bu may ñibbi Touba. na nga taxaw. na nga taxaw. ba ab tubaab bu ma tiim. ba ab tubaab bu ma tiim. sëñ Modou Moustapha. sëñ Modou Moustapha. wékk bakkanam ci loola. wékk bakkanam ca loola. lu ne mu jaral. lu ne mu jaral ko ko. ba mu indi sëriñ bi Touba. ba mu indi sëriñ bi Touba. wax nañ ne. wax nañ ni. guddi gi sëriñ bi ñëw ñëw jóge njaareem ñëw Touba. sëriñ bi jóge njaareem ñëw Touba. moo waxal boppam moo waxal boppam ni. malaayikal muxarabiina yi malaayikal muxarabiina yi dañu ànd ak jibril ak mikaayil ak asrafil danañu ànd ak jibril ak mikaayil ak asrafil ak muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu gunge ma ma ñëw tuuba ñu gunge ma ma ñëw tuuba bis boobu bu delsee bis boobu bu delsee dañuy delsi fi man fanaan ak man dañuy delsi fi man fanaan fii ci man loolu ma war a sëñ Moodu loolu ma war a sëñ Moodu li mu yéene boppam li mu yéene boppam te yéene ko jullit ñëpp te yéene ko ñëpp moo tax mu woote guddi moo tax mu woote bis bii ba mu koy def ba mu koy def mais nam sëñ Mbàkke Buso la wax na ko. mais num sëñ Mbàkke Buso la ko wax ni. damaa bëgg def lii. damaa bëgg a lii. sëñ Mbàkke limal ko li ñu fi war a jàng ci alxuraan. sëñ Mbàkke jàngal ko li ñu fi a jàng ci alxuraan. ak li ñu fi war a jàng ci xasaayit. ak li ñu war a jàng ci xasaayit. ak salaatu ala nabi yi ñu fi war a def. ak salaatu ala nabi yi ñu fi war a def. ndax nee na. ndax nee na. mbooloo fuñ daje. mbooloo fu ñu daje. ñëpp duñ maas ci jub. ñëpp duñ maas ci jub. waaye buñ defee lii. waaye bu ñu defee lii. lu fi waay indaale woon. lu fi waay indaale woon. danañu la fóot ba nga set wecc. danañu la fóot ba nga set bàkkaar Cheikh Moustapha ne ci loolu. Cheikh Moustapha ci loolu. fukki at ak juróom-ñett. fukki at ak juróom-ñett. gaynde gi wuutu. gaynde gi wuutu ko. di Cheikh Mouhamadou Mbacke. di Cheikh Mouhamadou Mbacke gaynde Fatma. yor ko lu toll ni lim ko yor. yor ko lu toll ni lim ko yor. dara mosu cee yàqu. dara mosu cee yàqu. dara mosu cee damm. dara mosu cee mu ñëw ci loxo ñoom ñoom njabootam gi fi des. mu ñëw ci seen i loxo ñoom njabootam gii fi des di sëñ Mbacke Mouhamed. sëñ Mbacke moom mu jëwriñu Cheikh Mamadou Moustapha. sëñ Mbacke moomu di jëwriñu Cheikh Moustapha. Cheikh Moustapha ko def jëwriñ. Cheikh Moustapha ko def jëwriñ. te ku xam dara. te ku xam dara. te xam démb. te xam démb. da nga xam ne. da nga xam ni. Cheikh Moustapha moo ko samp. Cheikh Moustapha moo samp sëñ Mbacke Mouhamed. sëñ Mbàkke yor jom jooja. sëñ Mbàkke yor jom jooja. ak ngor ga. ak ngor ga. ak fidwa ak fidwa. ak bëgg gi sëriñ Touba. ak bëgg gi sëriñ Touba. ak doyloo gi Cheikh Moustapha. ak doyloo gi Cheikh Moustapha. mu engagé lépp. mu engagé lépp. ba waral seen jotaay bii tey. ba waral seen jotaay bii tey. kim fi bàyyi nag. kim fi bàyyi nag. la ma sëñ Abdou Sakkoor Fall waxoon. la ma sëñ Abdou Sakkoor Fall waxoon. bi fi sama bàyyi jógee. bi fi sama bàyyi jógee. dañu ñëw ci ñaan gi. te ñëw ci ñaan gi. dañ caa ne. dañ caa ne ci ñaan gi ba takkusaan ba takkusaan mu ne dafa bëgg. mu gis ma balaa dem. mu ni dafa bëgg gis ko moom sëñ mustafaa mii balaa dem. mu sëñ sa ko ndax. ma xat booba mu xat booba lool. mu soññi ñaari yoon. mu soññi ñaari yoon. ma jóg ñëw ci moom. ma jóg ñëw ci moom. mu ni ma ñëw ngaa ma ne ko faal da ñëw naa. mu ni ma ñëw ngaa ma ne ko faal da ñëw naa. mu ne dama bëgg wax ak yow soog a dem. muy dama bëgg wax ak yow soog a dem. ma ne ko bisimilah. ma ne ko bisimilah. mu ne ma mbaa doo ko donnu. mu ne ma mbaa doo ko donnu. ma ne teg. ma ni teg. na ko soo ma ko leeralul de dama ko du mën a xam. ma ni ko soo ma ko leeralul de du ma ko mën a xam. mënoo donn mooy. mu ni donn mooy. la mu yor te bokk ci wërsëgam. la mu bokk ci wërsëgam. lay wërsëgam lekk na ko ba lekk na ko jeex. la mu yor te moomu ko nag. la moom la ñuy séddale ña moom. moom la ñuy séddale ña ko moom. mooy doon loolu mooy donn. ku jeexal. ku jeexal. te wuti woo. te wuti woo. yaa xam yaa xam. mbaa da ko doon. mbaa da ko doon. ma ne ko li ma la waxoon ci lu jëkk lay waxaat li ma la wax ci lu jëkkër laa lay waxaat. mu ne ma doon mooy. mu doon mooy. fam fabe. fam fabe. fa ngay tàmbalee. fa ngay tàmbalee. lam mu woon. lam mu yéene woon. te mënu koo def. te mënu koo def. ngir addu sa borom mayu ko. ngir sa borom mayu ko ko. nga mottali yéeneem yooya. nga mottali yéeneem yooya. tàmbali si jëfi bopp. tàmbali si jëfi bopp. ku dikk xam ne yaa ko jëlee fii. ku jëfee ñu xam ne ku fi ñëw xam ne yaa ko fii. yaa indi fii. yaa indi fii. loolu nag dal na sëñ Moustapha mii wutu sañ Mbacke. loolu nag dal na sëriñ Moustapha Mamine mii wutu sëñ Mbacke moo met xam na li muy wut lu mu doon. xam na li muy wut lu mu doon. te taxaw na ci tem. te taxaw na ci tem. doon gi mu doon jawriñ ci kër gi. doon gi mu doon jawriñ ci kër gi. yéene ku ko taxul. yéene ku ko taxul de. joma ma ko may. joma ma ko may. ak ngorom. ak ngorom. ak fitam. ak fitam. ak yaakaar Cheikh Moustapha. ak yaakaar Cheikh Moustapha. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. na ko. yëg na ko. gis na ko. gis na ko. xam na ko xam na ko. kon jërë ngeen jëf. kon jërë ngeen jëf. liñ ko waral di ko ñaanal. liñ ko waral di mooy mu wér. mooy mu wér. te gudd fan. te gudd fan. sut baayam aw fan. sut baayam aw fan. ñëpp a ko koy ñaanal. ñëpp a ngi koy ñaanal. ndax jëfam. ndax jëfam. ak dégg yi ñuy dégg ci ak dégg-dégg yi ñuy dégg ci moom. te lu ci ne. te lu ci ne. kenn rusul ñu nettali ko. kenn rusul ñu nettali ko. kon nag nee ko jërëjëf. kon nag nee ko jërëjëf. yéen ñi ko topp. yéen ñi ko topp. te sàmm ngor. te sàmm ngor. te sàmm li ngeen fekkoon. sàmm li ngeen fekkoon. bisu topp ci moom. topp ci moom. sëñ bi nee jërë ngeen jëf. bi nee na jërë ngeen jëf yéen dongo yi. li ngeen digge woon. li ngeen digge woon. ci sëñ Mbacke Soxna Lo. ci Lo. jëf ngeen ko ci Moustapha. jëf ngeen ko ci Moustapha. seere na ko. te seere na ko. ko te xam na ko te xam na ko te mi ngi ñaan te mi ngi ñaan su ngeen fi jógee bu ngeen fi jógee kenn ku ne ci yéen kenn ku ne ci yéen lay lay yitteem lay yitteem ci am ngërëmal sëñ Tuubaa te am ngërëmal sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla defal sëriñ bi nee jërë ngeen jëf sëriñ bi nee na jërë ngeen jëf. sant na leen bu baax a baax sant na leen bu baax a baax. gis na jëf ji gis na jëf ji. sant na ci sant na ci. bég na ci bég na ci. mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di gërëm. di leen sant di leen sant. ndax lu sëñ Moussa mënoon a yéene. ndax lu sëñ Moussa mënoon a yéene. te taxawu leen taxawaay bi ngeen taxaw te taxawu leen ci taxawaay ba rafet bi ngeen ci taxaw. yéen a judu àgg yéen a judu àgg. kon fu mu àgg kon fu mu àgg. ak lu mu àggale ak lu mu àggale. yéen ñi ànd ak moom kon nag yàlla na ko yàlla àggale ci nam ko bëggee te àggale leen ci na ngeen ko bëggee yàlla bu leen benn pakk fel da ba dara te ba dara bañ a gàllankoor oh, li ngeen di wut sëñ Tuubaa muy ngërëm li ngeen te sëñ koy joxe te sëñ Tuubaa koy joxe yàlla na nu ko boole jox ñun yàlla na nu